asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna mbaa yéen a ngi si tawféex mbaa yéen a ngi si jàmm en tout cas man maay ngi cool maa ngi si jàmm bu baax a baax baax baax baax di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Show TV comme ni koy faral di defee chaque fois ok gars yi te dama leen indil benn thème benn thème boo xam ni euh, confrontation laa koy wooye maanaam transition yi nga xam ni. ki nga xam ni moom moo di Faye Nara def na ko ak transition yi nga xam ni Fa Aydara def nañ ko lan moo tax ma choisir leen parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo rencontré wu si li nga xam ni moom moo di même thème j'ai jamais parlé na kan moo ëpp followers j'ai jamais parlé de leur jalousie yi nga xam ni beaucoup de personnes en ont parlé parce que man je crois que ni loolu ñoom la impacté seen problème la ñoom la intéressé quand il s'agit de vie privée man duma ci dugg mais quand il s'agit de impact bi nga xam ne da koy am si société bi alors là je crois que ni mën naa si ñëw joxe li nga xam ni moom moo di sama kàddu waaw nekkuma ki nga xam ne nag moom moo foog ni moom moo xam lépp malheureusement Sénégal boo nekkee benn nit boo xam ne dañuy gis tuuti intelligence ci yow tellement que dañ nekk benn dëkk boo xam ne ay sisumaan ñoo ci nekk dañ lay jàppee nit koo xam ni en fait da leen di jéem a minimiser ok oh, c'est pas ça mooy maanaam ñoom wala ñu ñëw nangul la li nga xam ne moom moo di sa expertise wala sa xam-xam dañuy ñëw jëm la minimiser parce que ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo inférieur intellectuellement si sa côté quoi loolu mooy li nga xam ne moom moo di Sénégal d'habitude moo tax ngay dégg gars yi naan lan waxoo fi tous li ngay wax maîtriser woo ko soit nga neex leen soit nga neexu leen mais man wala yéen képp koo xam ne da ngay wax ak li nga xam ne moom moo di askan bi l'essentiel li ngay wax mu dëggu ci yow l'essentiel li wax mu nekk une chose bien réfléchie après xoolal yaa ma gën xam quoi man ay caravane passe xaw ma la man yooyu yëpp duma ko dugg mais bon balaa may ñëw si Faye Nara damay commencer si ay dara on a vu une fille boo xam ni euh, neexoon na sénégalais yu bëri ah en tout cas amoon na benn impact bu positif boo xam ne amoon na ko euh, ak si sénégalais yi nekkoon benn xale bu jigéen boo xam ne mu ngeen Maroc. comprendre nga ñëw dugg si li nga xam ne moom moo di TikTok bi néanmoins que ne TikTok am c'était quelque chose boo xam ni mooy comme <laughs> TikTok yëpp mooy euh, sa li nga xam ni moom mooy quelque chose de comique nit ñi seetaan la am benn non stress ni ñu ko woowee mais maanaam da nga nekkoon nit koo xam ni da doon dàq stress au yi ah, mais dafa amoon benn particularité bu extraordinaire boo xam ni man en tout cas personnellement c'était pas les danses sa manière yi wala yi nga xam ne moom nga doon def mais dafa amoon benn aspect bu simple boo xam ni moom gisoon si yow te as boobu moo taxoon wax dëgg yàlla ma nawoon la quoi ma nawoon la quoi je vais naw parce que gisoon naa la da nga nekkoon benn xale bu jigéen boo xam ni tu simple da nga doon muuru xam nga tout le temps quoi et je me suis ah am na quelque chose boo xam ni dafa différent ak yeneen xale yu jigéen yi wala ñeneen ñi nga xam ne dañ nekk si social network yi quoi dañ nekk si réseaux sociaux yi. au fur ma si ñuy dem ma si gën a kontaan parce que j'ai vu que ni muuruwaay bi mosoo ko teggi et j'ai vu même beaucoup de personnes pas seulement xale ah mais ay mag parce que tey nii nit ki mën na mën nga nekk idolam te pourtant moom moo la mag fuuf moom moo la ëpp ay sagar mais xëy na da ngay def benn affaire boo xam ni moom gis na ni carrément benn manquement am la woon et li nga xam ni moom moo di benn perspective différente si li nga xam ni moom moo di dundam mu jël loolu noonu def la li nga xam ni moom moo di idole et il y beaucoup de personnes yoo xam ni âgées yoo xam dañ la doon jël si muuru bi nga muuru mu nekkoon benn affaire boo xam ni influence la je peux même dire que ni à certain moment nekkoon nga li nga xam ne moom moo ni benn influenceur y avait aussi tamit gis naa ay xale yoo xam dañ doon wax seen yaay dama bëgg a mel ni Fa Aidara xam nga di jël di muuru yaay defal ma ni Fa Aidara mu nekkoon quelque chose boo xam ne extraordinaire et là sénégalais yu bëri bëggoon nañ la si loolu mais tu nga ñëw Sénégal xaalis bi commencé dugg. buzz bi commencé dugg je vois que ni carrément que ni li nga ndekkoon maanaam coppinu man je vais pas parler sa vie privée wala ni nga mel en tant que caractère parce que xaw ma la je may wax si li nga xam ni mooy yow loolu nga ñu proposé personnage public nga def sa bopp kon tey jii ñun lu ñu mën a jàng comme ni ñu koy waxee rek gars yi au début li nga ko li nga ko xaw ma la lay la lay ëwalee ñun loolu lañ la mën a wax j'ai vu que ni carrément ni changé nga li nga xam ni moom moo di sa côté vestimentaire commencé nga def li nga xam ne moom moo di ay greffage commencé nga génnee li nga xam ne moom moo di muuru boobu noonu nga xam ni xale yi moom lañ la doon topp tey jii ni kon tey bu fekkoon dafa am ay ñoo xam ne dañ lay idolâtre parce que c'est normal nit ñi dañ lay suivre influenceuse nga bu fekkee nañ dañ lay suivre après xale yooyu noonu gis ni carrément da nga doon muuru ñu bëggoon mel ni yow seen yaay kontaan ci en ce moment xale yooyu noonu gis la carrément nga teg li nga xam ni moom moo di muuru boobu di ma tegal ay greffage wala di def ay yenn affaires yoo xam ne wala yenn colin yi nga xam ni mooy loolu là déjà nañ gis ni carrément ni yow sa bopp ko mais commencé à perdre li nga xam ni moom moo di le bi nga xam ni amoon nga ko bu la doon différencier ak yeneen xale yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi si biir TikTok bi beneen affaire bi mooy nga commencé dugg si li nga xam ni moom moo di showbiz bi dëgg la xaalis mën nga ko lijjanti mais am na benn genre caractère boo xam ni boo ko amee tu peux gagner beaucoup d'argent et je répète sans pour autant nga wu wala sans pour autant nga li nga xam ni moom moo di sa personalité bi nga xam ni moom moo taxoon nit ñi li nga xam ni moom moo di la suivre commencé sol ay jupe commencé sol lu gàtt commencé fréquenter yenn nit ñi en fait buzz boobu noonu mooy boo demee ba toll foofu noonu. moom moo la sonal ba en certain moment tu as perdu le respect de beaucoup de personnes ñi nga xam ne au début dañ la nawoon si sa différence ak yeneen xale jigéen ñi ñi nga xam dañ jina ah ndeysaan am nañ benn au moins si maanaam si si troupeau bi am nañ kenn koo xam ne dafay muuru ah y en avait d'autres mais yow sa bos peut-être yaa gënoon fësle et eh, malheureusement loolu yëpp dañ na parce que lan parce que da dem ba dugg si li nga xam ni moom moo di monde influenceur u sénégalais yi monde dundu sénégalais yi monde buzz bi sans pour autant continuer à li nga xam ni moom moo di sa caractère et c'est tout le contraire de ki nga xam ni moom moo di fay Faynara ku ko xamul tamit moom nekkul ñaar ñi ñëpp nekkuñu woon Sénégal en fait ils ont grandi si yeneen Faynara ñun xam nañ ni carrément ni benn parti rek moo nekk li nga xam ni moom moo di sénégalais côté séeréer mais gis nañu carrément benn xale bu jigéen la boo xam ni si j'ai bien compris Espagne la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee avec li nga xam ni moom moo di sa famille. mais au moins parents yi inculqué nañ ko li nga xam ne moom moo di culture bi beaucoup d' yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi amuñu li nga xam ne moom moo di culture bi nga xam ne fay na la am nañ ko maanaam y a des parents qui peinent à donner li nga xam ne moom moo di seen culture doom surtout fekkee surtout bu fekkee mix la seen doom quoi maanaam ba seen doom yi du ñu représenter seen pays wala du ñu sentir seen pays wala du ñu am envie sax. jàng làq wala dem li nga xam ni moom moo di dëkk boobu noonu Faynaara nag yàlla def na ni carrément yaayam a été bien lii laa xam nga jël na li nga xam moom moo di doom inculqué na ko ni nga xam moom moo di affaire sénégalais ba xale bu jigéen bu mu demee ba màgg gis ni carrément ni business ubbeeku na te da kay leer ni business boobu noonu c'est plus fructueux fi nga xam ni moom moo di Sénégal que Espagne parce que Espagne foofu noonu xëy na euh, compétition bi dafa gën a gànd mu jël décision ñëw Sénégal bu ñëwee Sénégal nag la différence entre li nga xam ni moom moo di faa Fa Aïdara ak Faynara mooy Faynara faisait des vidéos plus constructives ma maanaam représentation wu africaine parce que dëgg la dafa nekk benn affaire boo xam ni daf ko dab ko en fait maanaam daf ko dab nekkul loo xam ni daf ko judduwaale daf ko dab ma maanaam intérêt bi nga xam ni am na ko si pays africain intérêt bi nga xam ni am na ko si Sénégal daf ko dab maanaam c'est quelque chose qu'on l'a inculqué ko quoi tandis que kële moom daf si juddu en fait yaayam ak papaam moo tax boo xoolee les deux kii day laax olof kii laaxul olof kii dafa dafa mën a fecc olof mbalax kii mënul fecc mbalax comme il se doit parce que ñoom ñaar bokkuñu li nga xam ni moom mooy niveau xale bu mu jigéen nag commencé def li nga xam moom mooy des vidéos constructives def ay vidéos yoo xam day wane li nga xam moom mooy dëkkam day wane Sénégal on a vu aussi tamit apogée bi nga xam ne am na ko parce que Faynara était seulement local mais moom au moins génn na tuuti si yeneen pays africains yi gars yi bëri ñëw nañu laaj ko pour ñu defal ni moom ay featuring même bu fekkee on parle toujours de TikTok mais gis nañu benn genre upgrade bi nga xam ni am na ko kon tey jii nii moom moo gënoon yomb mu dugg si li nga xam ne moom moo di monde luxe bi nga xam ne Faynara foofu la nekk mooy maanaam def ay greffage mais on voit une transition bi nga xam ni xale bu jigéen bi def na ko de solo solo yi xam nga sexe yi sol solo nii ramadan bi j'ai vu que ni elle a commencé à changer ba dugg ba nekk li nga xam ni moom moo di ibaadu pause fii la problème bi nekk nag fii la seetlu bi nekk en tout man personnellement naw naa ko ci li nga xam ni moom moo di changement de comportement bi nii naw naa ko si li nga xam moom moo di photo yëpp nga xam ni wala vidéo yëpp nga xam ni elle elle s'habillait mu génnee ko pour def li nga xam ni moom moo di culture musulmane bi pour def li nga xam ne moom moo di culture bi génnee li nga xam ne moom moo di occidentalité bi nga xam ni teg nañ ko foofu noonu benn léegi nag bokk de personne critiquer ki nga xam ne moom moo di Faynara si nga moom moo di bi nga xam ni bëgg na ko jaay en fait une fille li nga xam moom moo di vidéo yu bon yooyu yëpp xam nga Sénégal dañuy naan gars yi duñu wax si li nga xam ni moom moo di positivité dëkk bi mais sénégalais moo bëggul lu positif maanaam tellement qu'on est tellement qu'on est hypocrite ah, la majeure partie des sénégalais je rectifie encore que tey jii nii mënuñu gis li nga xam ni moom moo di benn lumière boo xam ni ñëw na foofu noonu en fait vous voyez une fille boo xam ne dafa jóge si li nga xam moom moo di ay muuru dem ba dugg si li nga xam ni moom moo di seey bi comme ñu koy woowee ay greffage ay liyëg lii ay patati ay patata nga koy dëgg si ay bagage ay diwu tëdd naa hôtel ay genre yooyu noonu nga gis benn xale bu jigéen boo xam on pourrait dire que ni vie occidentale bi ñoo dugg si li nga xam ni mu muuri muuru bi tout ce à dire sur elle mooy maanaam compte bi nga xam ni bëgg na ko jaay vingt millions. en fait lu rafet li nga xam ne def na ko moment bi nga xam dañ ko waroon jël yëkkati ko def ko benn genre sorte d'idole pour suñu doom yi pour ñu représenter toujours li nga moom moo Sénégal loolu bàyyi ngeen ko ngeen concentré aussi compte TikTok bi nga xam ni moom la bëgg a jaayee vingt millions de francs CFA. en fait pour yéen vingt millions de francais fa moo ëpp valeur changement bi nga xam ne xale bu jigéen bi def na ko loolu laa bëgg a laaj sénégalais on est dans quel monde lan moo tax sénégalais bëgg toujours chercher li nga xam ne moom moo di futilité te du ñu gis li nga xam ne moom moo di la part des choses beneen affaire bi mooy léegi nag gis nañ ni carrément dafa créer li nga xam ne moom moo di brandam ay yére y a des qui disent ni ok dafay jaay yére moo tax mu changé li nga xam ne moom moo di comme ça nit ñi mu doon influenceur pour nit ñi commencé mën a jënd li nga xam ni moom moo di yére yi comme ñeneen ñu ngi koy defee comme Maam Ndiaye savon comme les jours parce que gis nañu Sénégal tey jii nii business boobu noonu dafa commencé dox ma maanaam créer sa brand en ligne gars yi di ko jënd et tu te fais beaucoup d' argent nag gars yi bëri nee nañu est ce que nekkul def li nga xam ni moom moo di théâtre mais man personnellement même bu fekkoon théâtre la l' bu mu nekk li nga xam moom moo di en saison l' bu mu nekk benn upgrade boo xam ne dafay am ay li nga xam moom moo di mise à jour mooy maanaam ëllëg si biir nga gis ko kon mu bëgg jaay li nga xam ne moom moo di ay jipp mu ne ay soutien gorge muy futteeku di ko won ñi nga xam ne moom moo di sénégalais juste parce que dafa bëgg a jaay soutien gorge li ma koy ñaan mooy tu as pris route jël nga ne da ngay muuru sa vie privée sa vie privée la mais li nga xam ne moom laa bëgg nga won sénégalais en tant que influenceuse mooy maanaam say muuru bi nga muuru nga continuer di ko muuru parce que tey jii boo génnee li nga xam ni moom muuri muuru yi alors là tu prends euh, maanaam sénégalais comme des cons te gars yi wax nañ la ko les sénégalais ne sont par des cons gis nga gars yi fu ñu mujjee faaya faaya dara parce que tey jii nii faaya dara boo bëggee dégg dara toppee seetul dara de. yow nag yàlla may na la nga dugg fii les gens parlent de toi gis nañ carrément y a des qui voient li nga xam moom moo di a des gens qui voient li moom moo di mais jàppal ni route bii nga nekk en tout cas man personnellement je le vois que comme quelque chose de positif te na ko téye ak même bu fekkee business sax moo tax nga dugg si mais jàppal ni benn affaire la boo xam ni influence bu baax la influence nit muy muuru moo gën fuuf influence mu mel ni ay Kardashian en tout cas yi lii laa leen bëggoon jàllale en préparant d'autres vidéos dinaa ñëw si Mia Guissé dinaa ñëw si femme boobu noonu tamit Myrma wax leen li nga xam loolu laa xalaat te du yomb de gaay King West